ay murit lañu xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def. jërëjëf ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di am mbégte njiiti réew mi président makki Sall tànnuñu pour ñu ñool ko ci bés bu màgg bi di bésu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram yàlla bàyyi la fi nga ànd ak wër ci kanamu njaboot gi mbegte bi nag ñaar la parce que ki ñu yónni mooy suñu kilifa waaye daf ma booleek samay kilifa parce que samay sëriñ la ma booleel boole maag samay mag mag magu taalibe e, ne ma demal Touba moo tax ma jógee France démb xëy ñëw fii dagg lépp luñ doon def parce que nag kilifa goo fonk bu la yónnee di yónni la ci ki nga yaakaar da ngay yàkkamtee def liñ la yónni moo tax ñu ànd ceeg gouverneur ak préfet ñu ñu lim fi yëpp pour ñëw jox la yi nga xamante mooy yóbbante yi barkeelu ci màggal gi waaye tàllal la ay loxo parce que waxtu wu ne màggal gi day dajeeg jàngale àdduna te ku ko wër fii di nga xam lan mooy réponse bi même bu dee question parce que réew mi dafa soxla dal réew mi dafa soxla jàmm réew mi dafa soxla nit ñi xam ne réew may ñu ëpp doole ñun ñëpp yàlla nag mooy dénkaane lu nit bari bari daraja te dénku la doo yor doo yor dara yàlla tànn le président Macky Sall jiital ko ci réew mi mu ànd ceeg ay nit lu xuloo bari bari wala lu werante werante bari bari yàlla li mu dogal ànd ci moo gën du tere nag ku ne am say bëgg-bëgg waaye buñ tollee ci réew moo xam ne ndaw ñee ëpp mag ñi képp ku bëgg réew mi jàmm rek nga war a woote parce que ci la jàmm lépp xëj looy wutit ci jàmm nga ko mën a am mu am njariñ te président Macky Sall mu ngi góor góorlu nag ci li ñu ko jox ku mën lépp nag amul ku yàlla dogal ci yow lépp lu nit ñi xalaat nga def ko it amul waaye yàlla dogal na ci li ñu ko dénk ku ci ne mën naa teg baaraam loxo ci lu muy def loo xamante ne pour yërmande askan lu la pour Sénégal jëm kanam ñuy jublu nag ci lu am solo muy nawet te réew mi moom nawet a ko yor muy sàkku ñaan ci loolu gannaaw bu jàmm amee ci yii ñu jëm muy ay jongante yàlla may ñu ci ndamit ñu di ko sàkku ci bés bu màgg bi jàmm rek am ci ñuy ñaan it lii nga xamante mooy nawet mu nekk nawetu jàmm ndox mi bari lool te du yàq bu mu lore di ñaan it nga yàgg fi lool nag te di ko ñaanal sëñ taxaa di ko ñaanal sëñ Muntaxa xalif général de Mourides di ko ñaanal it deretu Serigne Touba yëpp yàlla def jàmm ci réew mi eh, loolu ay kaddu la yoo xam ne mënta ñàkk eh, dafa doon taalibe moom boo ko yónnee ci këram wax ja day jafe parce que fii moom ñëpp xam nañ ne yàlla dogal na may taalibe ci kër gi eh, ngeen téye ma it comme doom ba taalibe gi wéyee man xam naa ne fii laa bokk amul lu may xewle ci samay waajur tey jëlul gilleem andi ko ba ba ba jaxaw ñaanal ñu jàppale ñu ba pare nag dere tamit déplacé wu ñëw sëñ Moustapha loolu mënoo mënul defal lu ëpp loolu te loolu nag bu ñu ko defalee it ñaan gu ñu fa ñaanal président Macky Sall ciy jiitu ñuy sant bu baax a baax di sant ñi ñu fekk yëpp euh, waa kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké sëñ Cheikh ak sëñ Moustapha ñu ngi leen di sant di leen ziar. di ziar nag suñu sëriñ bi nga xamante ne moom daanaka bu ñu la gisul gis ko rek mel na ni gis nañu la e, di ko sant bu baax di sant sëñ Abdou Lahad Ka le maire de Touba di di la ñaanal yàlla kattanal la e, maire yi moom defe naa ne yenu nañ waaye yaa gën a yenu yow ku nekk Touba moom jiite fi defe naa lu mu diis diis feneen fii la gën a diisee waaye lépp dana sorti parce que Serigne Touba lañ koy defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp responsable politique yi fi ne ak ñi nga xamante ñëpp dañuy yëngu ci mbiri jamono ji ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla aar ñu yàlla teg loxoom ci ñun ba seytaane du dugg suñu biir mbay peex nag lay mujjee il faut ma ñaanal la yow tamit nga yàgg fi loolu te wër parce que tamit tiitaru yoon wi nga eh, boo doon wax lu kenn xamul it kenn du ci wax li ñuy wax waaye tey eh, foo jëlee kàddu ku nekk dina sawar a nekk taaliba sëñ Tuubaa te loolu lu ama am solo la kon ñu ngi lay sant bu baax yow tamit la gërëm. loolu lépp nag mi ngi koy def ci tur ki nga xamante ne moo fi nekkal sëriñ bi di Cheikh Mouhamed Mountakha te moom muy jëwriñam mu dee la xamal ne <clears throat> yónneen bi day neex na lool waaye yow mi jaar ci sa loxo mooy de ko ci dàqal ndax xam na ne mooy sa wajur mooy sa sëriñ mooy sa lépp te président xam seen diggante moo tax mu ne na nga ñëw tey. dikk ci màggal gi delluwaat loolu itam day tegtale yitte ji nga xam ne aajo ji nga xam ne jox na ko bis bi bi nga xam ne amul lu dul moom te bis bi day farata rawatina fii jamono ji toll ndax bu ñu demee ba lu bare bare bare jaxasoo ci àdduna si ñu bari am njàqare ñu bari tiit kon ku mel ne sëñ laat te démb rek ak sëñ laat bi ñu ngi ko doon wax ci exposition ba muy université boo xam ne ko war a jàngale ci àdduna si kon kooku bisam delloosi ko jël ko teg ko ci kanam nit ñi ñu xam kii li mu doon doxal li mu doon li mu doon woote li mu nekkoon modèle ni mu nekkoon exemple ci ak njullit ci ak taalibe ci bëgg Sëñ Tuubaa ci liggéey ak ki lépp loolu foog naa day farat ndax réew mi ku meloon lañ soxla teg te nag amul lu dul bis bi kon képp koo xam ne jàppal nga ko bis bi képp koo xam ne fonkal nga ko bis bi rek xamal ne am na lu mu jàpp ci yow am na lu mu namm ci yow te xam na ne président jiitul benn bis te ci bis bii kon boo demee neen ko sant bu baax ngeen gërëm bu baax a baax boo demee itam na nga dalal xelam mu xam ne ay ñaanam waxtu wu nekk mi ngi ko jëmale ci moom sa dakk te gëru na fi métti sax ay jamono waaye waxtu wu ñëwee fi wax naa ko daaw bi ngeen fi ñëwee am na at moo xam ne bi fi daaw di Diallo ñëwee ba mu ñaanee lañ bëggoon fa saase la ko suñu borom saafara te loolu rek mooy wéy kon nekkoon xam ne réew moom jàmm rek moo fi am ndax fi mu toog jàmm dong lay ñaan jàmm dong lay woote ko moom lay woote kon am xelam dal mu ngi koy sant mi ngi koy mi ngi koy gërëm euh, wax nga léegi sëñ Laat mi toog ci diis goo xam ne dëkk bi diis na ko moom itam ndax xam ne mi ngi ko koy dénk bu baax ndax li nga wax dëgg la tubaab mooy deuxième ville du Sénégal nekk dëkk boo xam ne jafe-jafe daa bari bëgg-bëgg yi bari kon képp ku yor am na loo toggoo te yàlla dafa def ba mu dëkk bépp ci loxoom ni ko sëriñ bi teg mu jël ko tegaat mu jël ko tegaat ko ci loxo Abdoulaat bi kon moom itam mi ngi koy dénk bu baax ndax xam nañ bu ko jàppalee teeñ ko yan bi foog naa dana dana gën a woyof nga xam daal sëñ mi ngi lay sant mi ngi sant mboolem njabootam gi fi nekk rawatina rakam yu baax ya toog mu di sëriñ Cheikh me ak sëriñ Moustapha te sëñ Abdou ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Abdou Laat nekkoon benn daa mel ak xilaafa sax ñoom ñaar ñoo ko bokk ba daan dafa dem ren kay dem déwén lépp loo xam ne moo doon wàllu diine seen bi daal jëloon ko teg ko loxo sëñ Abdou Khadir ñoom ñee nag ñu koy doxal ci anam xam ne anam gu rafet la loolu itam mi ngi leen koy seereel ndax bëgg na réew mépp xam ne noonu la demee ak ñoom waaye itam noonu la demee ak mboolee njabootu sëñ Tuubaa gépp kenn desul fan yëpp amul kenn koo xam ne des nga ñëpp ay dikk mi sëñ daal jaxate mais tamit moom ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp rek kon daal wax ji moom foog naa du gudd ndax sëñ moom dane woon bu ngeen dikkee mu recevoir leen fii ci biir waxtaan ak yéen ndax ak njabootam ngeen waaye sax moom du def cérémonie ndax ëpp na loolu weesu na loolu ndax da ko Sëriñ teg ak fi mu toll waaye yéen nag lii dafa mënta ñàkk moo tax may caméra yu dugg fi ndax itam seere la te diggante bu rafetee dañ ko war a seere at lu sëpp jot ci kon daal mi mi ngi kontaan ci yéen mi ngi bëgg ci yéen rawatina yow mi jiite délégation bi nag di nuyu gouverneur di nuy ah, préfet di nuy commissaire ak ambassade itinérant sëñ Isma ak toute la délégation di nuyu aussi honorable député